di buqaatal mubaaraka ci Touba Sam bokk Cheikh Abdou Latif Mbacké mu sëñ Maam Moor mu soxna Jaara toog ci ëttub e, njabootuk sëriñ Mabey Guèye ci bis bii nga xam ne tey ci la ñuy fàttaliku jëmm ju tedd jooju muy sëriñ Mabey Guèye ak sëriñ Mor Xassa Badiane ginnaaw ndigal li nga xam ne jotoon nañ ko ci kilifa yu baax yooyu tàmbalee ci xalif général de Mouride waaye wàcc ci sëriñ Ahmadul Maxtaar mi Cheikh Moustapha ba ci sëñ Moustapha Mbacke Mouhamed ba ci alxaaji sëriñ Mbacke Guèye mi xalif sëñ Mabé Guèye moo wàcc ba ci jëwriñam alxaaji sëriñam Amsatou Guèye mi nga xam ne mooy waajuru sëriñ Moustapha Guèye mi woote bis bi bis bii nag yàgg nañ ko woote lool waaye xam ngeen ne e, liñ koy yàgg yàgg woote lépp lañ ci doon woote rek waxtu nekk moom la ñuy soññee muy jàng alxuraan jàng xasida ak e, sant. moo taxone ñu woote bis bi ndax ki ñi sante liñ koy sante moy bis bi nga xamne ci la amoon ndigal ci Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba waye it Cheikh Mahamadou Moustapha it gërëmoon ko ci ginaaw bi nga xamé ne nopp naa gis Serigne Touba mu laxas top Cheikh Moustapha euh nim top won Serigne Touba ba ni nga xamante ne bii nii ab liggéey mat mu ñibbi bis bobu nak mom lañuy fatali ko tay fi ci Touba Sam ci kër serigne Moustapha gey mom serigne alhadjam Amsatou Guèye yi koy woote. sëñ Moustapha Guèye mi ko woote it ànd kook njaboot gi mu bokkal sëriñ Mabey Guèye yëpp waaye ànd koog rakkam yi mu bokkal alxaaji sëriñ sutu géey euh, moo tax bu ñu dee fàttali ko bis yu mel nii nag ba daje ci gis ngeen subaak léegi fu ne nit ñi bàyyi ko nañ fa gis ngeen njàngam alxuraan meeg yépp kon dana yàlloo nag ñu def aslëf ci jëmm ji ñu fàttaliku tey ñu andil nag kooku mooy kan waaye nag la ca gën a yéeme nag mooy solos màggal gi. ndax nit buñ ñu ko dee fàttaliku rek am na lu tax ñu koy fàttalikoo loolu incha allah jëmm ji ngeen jan loolu mu nekk sama loxo ndeyjoor di sëriñ Birahim Guèye di rak ci sëriñ Moustapha Guèye moom it lu bari ci màggal gi sëriñ bi tegoon ko ci loxoom mu koy saytu ba liggéey bi yegg si fii waxtaan yi ñu ci doon def yëpp ci plateau yi ñu doon def Touba ci yi ñu doon def yëpp ñoo moom ñoo ko ànd waxtaan yi ñu def ci rajo yi ñoo ko ànd yëpp te taxawaayam ak itam tax fekk nañ ko ci ay xat-xat ndax bis bii kum fekk nga daloo ay gan ab xat-xat la ndax ni serigne bi magal bis bi non la koy magal fi magal gi serigne Moussa bi mu koy dogo a ci kër gi rakam yépp dañoo bokkoon nek diko ko taxaw mom jamono jamono bi serigne Moussa woote bis bi moom mii mën naa mi ngi won ci daara ji waye tay suñu borom dimbali ko ba ab liggéeyam ci daara ji mat tay suñu borom dimbali ko ba tay ji mu dem ba yalla defal ko taw la serigne Moussa don man mu diko ko man la serigne Moussa don def mu ko def mbolo mu bari ne ci gannaawam mu taxawal màggal gi ni ko sëñ Moustapha di wootee moom bu màggal gi ñëwee këram gi moom it mu def ab tàntam takki rajoom woo ay jàngkatam ñu ànd ak moom santale ko sëñ Moustapha gi sant delloo waale ko njukkal seen maam ju tedd jooju muy sëriñ Mabey Guèye ak sëñ Mor Asta Badiane kon dañ lay jox kàddu gi rek sëriñ Birahim nga ñëwal nu ci jëmm jooju fàttali nu ko mooy kan boo noppee nag. ñëwal ñu ci li waral màggal sëñ Moustapha ko def nga ñëwal ñu ci allah. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala alihi wa sahbihi wa xaddimihi wa ummatihi wa sallama tasliman barka xaadimul Mustafa bokki julli di ñuy teewlu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu no ngi nuyu ñep di leen siaré di balu ñep ak di jiital ci nuyu bi sahibul fadila Cheikh mohammedul muntaka Basir euh, di ko ñaanal yalla suñu borom mu doli ko kàttanuk zahir ak gog batin ba yeen bi mu yeenu di ko liggeel Serigne Touba ci toolub lislaam bi mu yobbu ko fa mu ko yene yobbu tandu ko mbolem taalibe ak jullit yep di siaré mbolem bokki jullit yi bokki taalibe yi di yëkëti sunu kaddu ci ndigal ak teefu alxaaji sëriñ Mbacke géey mi nga xam ne moo toog toogaayu sëriñ Mabéye tey te mat ko sëkk te it yàlla teg ko ci bopp mbooleem seex yi nga xam ne dañoo aju daaru xuddoos te yaakaar seex Cheikh Mouhamadoul Moustapha yàlla dogal tey moom alxaaji sëriñ Mbacke Gueye sëriñ bi jiital ko ci seen kanam muy seen jawriñ ñu yëkkati sunu kàddu ci ndigalam ak kilifteefam waaye ci eh, kàddu jëwriñam rakkam alxaaji sëriñ Amsatou Gueye ak Serigne Cheikh Mbacke ak mbollem sering Serigne mabey yep serigne Modou Makhtar lay nuyu di nuyu mbollem sa bokk yu bax yi nga andal ci liggey bu am solo bi ngeen di liggey ci yoon wi di ko ci ummo islam nga xamne ne liggey liggéey rafet lu nañ ko ci doxin wi ci sel gi ci labir gi ci yewenal gi ci fan yep di ñaan yalla mu kàttanal leen ba seen liggey bi muy seen kër gi yokk ba nek ay television yu bare bare yo xamne fu ni tollu ci adina bi diko ko jot ndax su boobaa lu yàqale lislaam rek la di la sant yow itam yow mi nga xam ne yow la sëriñ bi doxalee sunu diggante ak ñoom te it nga mat ko sëkk di jàmbaar di kenn ci kër gi. waaye di siyaare baax Cheikh Mamadou Moustapha Guèye mi nga xam ne itam bis bi tey moo ko woote tey bokk ci kenn ci njabootu sëriñ Mabéye ndax sëñ Modou Makhtar ni nga ko waxee sëriñ Mabéye mbooleem ñi mu jaboote ñëpp tasaaroo nañ ci goxi réew mi tey te kenn ku nekk fa nga nekk tey. ah la fay sëg yëngu ak sab dal mooy yëngub sëñ Moustapha mi rek akub dawlan te mooy diiney lislaam waaye mooy jàng alxuraan ak di ko jàngale ak di yar ñi la yàlla booleel ci sunna loolu yi nag liy sabab bi mooy ni nga ko waxee léegi ci sa laaj bi sëriñ Mabéye loolu du ne lu mu sos la sëriñ Mabéye sosu ko waaye dafa fekkoon way juram ya ñu nekkoon ca mu sof ko ndax sëriñ bey ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Gomaay Guèye mooy way juram sëriñ Ahmadou Gomaay ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Moor Guèye mooy way juram sëriñ Ahmadou Moor ku ñuy wax sëriñ Ahmadou Moor Yaasin Guèye mooy way juram kon sëriñ Ahmadou Moor moo jur sëriñ Ahmadou Moor Yaasin mu jur sëriñ Ahmadou Gomaay mu jur sëriñ Mabey ñu nekk càlla la goo xam ne nag sëriñ Ahmadou Moor moom mi mi ngi laxase woon bàyyi koo Ceyeen bàyyi koo Jolof ci seekal yu yàgg-yàgg jiitu feeñu jamono sëriñ bi tabbi si ci réew mii di bawal waaye sanc dëkkam bu rëy bu màgg boobu nga xam ne siiw na lool ñëpp xam ko mu tuddeen ko tawakkaltu alallaahi te ñu gën koo miin ci tawa mu nekk ci département Bambey ci région bu Diourbel ñu baree bari miin ko muy dëkk boobu daf koo sancan ngir jàng alxuraan ak di ko jàngale waaye dafa fekkan way juróom ya nekkoon ca ndax seen sëriñ Mabey càllalam googu mooy maamam yooyu ci ëpp tënk rek seenu fonk alxuraan ak seenu yitte woo alxuraan yóbboon na leen ci daa ci seeni jamono seen jenn doom ju jigéen mësuta bokk ci askan wi dugg néegu sëy dem këram te du ne dafa tari alxuraan ba mokkal ko xam ay farataam ak i sunnaam waaye nag kenn ci góor ñi mësuta samp kër ci seeni jamono te du ne dafa wan kaamil bi ginnaaw bind ko te xoolu ko géeju ci mbooloom fi xeeti fànni xam-xam yi ñu soog koo sampal kër eggoon na ci seen armeel yi bopp sax dañ koo xaajal ñaari parti ginnaaw bañ ko collecté ba pare ne roq bële kat ñi nga xamante ne bii dañoo watt alxuraan ba bind ko mokkal ko wan ko ginnaaw tari ko wan ko ginnaaw bind ko ñooñee lañ fay denc ruq bee nag ñi nga xam ne dañoo jàng te mokkaluñ lañ fay denc loolee liñ ci jubluwoon jubluwutaan xeeb wala dal waaye dana nekk ab jàjj ci askan wi ba kenn ku nekk la ngay puukare woo di ko tiitare woo di ko sagoo mooy fexe nekk koo xam ne kaan ngay nekk moo xam ne dangay ngay watt alxuraan ñooñu mooy cosaani Serigne Mabé ci wàllu kër jur bu góor kon dafa mel ni Serigne Mabé alxuraan ji Serigne Moustapha di yëngu tey jabootu Serigne Mabé yëpp di ca yëngu kenn ku ne fu mu nekk Serigne Mabé daf koo fekk. ay juróom nekkoon ci juróom wu jigéen bokkoon ci ñi nga xam ne ci bu njëkkoon euh, bokkoon nañ ci buuri àddina yi maanaam maanaam ñi nga xam ne yàq bu li olof di wax yàq bu rëy nga xam ne. daanaka moom lañ xamoon dem bu njëkk feeñoo mag ñi ci saayir ba yàq li diine ci lislaam sëriñ Mabé foofii la bokkan ndax Birima Jaxu mi nga xam ne réew mi ñëpp miin nañ ko xam nañ ko moo ko meññ ndax Birima Jaxu moo jur ku ñuy wax yoro yoro jur ku ñuy wax maxtaar maxtaar jur Mamar Dawas Mamar Dawas jur soxna Seyna bu Njaay mu jur sëriñ Mabé foofi la sëriñ Mabé bokk sëriñ Maxtaar waaye nag mu nekk jëmm jooj way juróom yi nag li ñuy nekk nekk ci loolu di ci yëngu sax ci jàng alxuraan ak di ko jàngale di liggéeyal yàlla ci toolub lislaam boobu nag ñoom fekkante wu ñoon ak sëriñ Touba jamono. sëriñ Mabé mii nag moo fi fekkante ak sëriñ Touba ci kaw suuf ci jamonoom bi mu fekkanteeg sëriñ Touba nag yàlla dimbali ko nag ci yoon yu gudd yooyu dina. Euh, gudd ngir ñu man koo leeral waaye yàlla boole ko ci ñi nga xam ne taw feexee na leen taw feexal na leen rek ci ñu bokk ci ñi dajeeg Serigne Touba ndax xam nga ne al arwaahu junnoodu mu jànnada maanaam yàlla suñ borom daal mooy boole ay nit. ci la sëriñ bi nag bokk ci ñi nga xam ne ginnaaw bi mu jaaree ci waajuram sëriñ Ahmadou Ndaara mi njëkk a jox sëriñ Touba boppam ci askan wi jaar ci sëriñ baa bu bàyyi taxam boobu ko yar tërbiyew ko ba ni mu demee sëriñ Touba nag ci la fekkee sëriñ Touba ci yéen Jolof sëriñ bi mi ngi njëkk a gisante ak sëriñ Touba ci ci Thiéyène Jolof keroog bi muy dem ci sëriñ Touba fekkoon na mu jàng ba wattu mboolem xeeti fànn xam-xam yi donte xam-xam du mat du àgg waaye booba fekkoon na mu géeju ba sañ toog nag di jàngale moom baa di am ndigal ci way juróom sëñ Amadou Ndaara nag dem fekki Serigne Touba ci yéen Jolof am faak Serigne Touba nag ñetti fan yoo xam ne Serigne Makhtar ñetti fan yu kiimaane la diggante Serigne Touba ak Serigne Mabé ñetti fan yooyee li mooy xat-xat sëñ Touba def na ci sëñ Mabé loo xamante ne bii nitu yàlla nekk naag ab taalibeem lu ma gëman ñeen fukki at te mënta def ci moom genn wàllug la Serigne Touba def ci Serigne Mabé ca ñetti fan yooyee Serigne Mabé wax na ne bi mu ñëwee fekk na kër Serigne bi xat gi kër Serigne bi xat foo ko takk wees na ko ba mujj nit ñi dañuy tànt ci àll bi di def ay tànt di déglu ndigal nee na bi ma ëgsee ñett ñi nga xamante ne bii moom laa àndal nee na bi ma ëgsee def nañ ci kër Serigne Touba gi ci Thièyène Jolof ñetti fan yoo xam ne Serigne Mabé nee na guddi gu ne bu jant bi sooyee balaa bët a set néeg yi ne ci kër gi néeg bu ne dinañ ko simpee fi mu nekk toxal ko feneen bu ñuy noppee day fekk ñuy nodd nodd gu njëkk. sëñ maa bi bi ma bi ko way jur wi laajee loolu ndax xam nga lu ci sëñ bi na fan dafa wax ni sëriñ bi de jàpp na ne lim ci jubloon mooy bañ kenn nelaw bëggut kenn toog la xooy neen gis nga ni sëñ Tuubaa daa tërbiya waaye ci diggam ak sëñ Tuubaa nag ci jataayu yàgg yooyee ñetti fan yooyee nag xam naa ne du xaj ci émission bi waaye bokk na ci li ci gën a fës ñetteelu fan bu mujj ba Serigne Touba woolu na ko mu ñëw moo Serigne Touba képp ci ab ruq Serigne Touba xëcc benn këll bu mu tegoon ci wetam ñaari këll yu dëppaloo te jiitu booba sëriñ Ahmadou Ndaara mi nga xam ne mooy way juru sëriñ Maabe te yar ko di bàyyi xam bi muy jébbalu sëriñ Touba sëriñ Ahmadou Ndaara dugub la jébbalu woon ci sëriñ Touba dugub joo xam ne soquñu ko moom la jébbalu woon sëriñ Touba diir bu yàgg-yàgg ba sëriñ bi nekk ci leen Jolof sëriñ Maabe dem jébbalu ci moom keroog bi sëriñ Maabe joxee boppam sëriñ Touba sëriñ Touba yootu na këll bu nekk ci wetam xëcc ko mu jege bi këll boobu jegee sëriñ Touba ubbil boppam këll ba ci loxo boppam ba teg ko ci suuf këll ba nekkoon ci suuf cere nekk ca sëriñ Mabé dugal loxoom ci biir cere jooje sëriñ tubaa dugal loxoom ci biir cere jooje sëq ca ngëpp ko ba mu dóor mu teg ca këll ba ca def def ko ba muy ñetti yoon sëriñ Mabey nee na mu xëcc këll ba mu jege ko mu yëkkati sa satalaak boppam ga sotti ndox ca loxoom ba mu jaar ca jaarub aqiqa ba wàcc ca suuf sëriñ Mabey nee sëriñ waa buux ma ko nee na ma jëfandikoo ko nee na bi ma xiiloo cere jooj ba mu jeex mu xëccaat këll ba mu ñëw mu dellu defaat ca ndox buuxaat ma ko ma jëfandikoo ko nee na sëriñ bi ne dënn di ma xool ba yàgg mu daal di mooñ daal di ne réew mi de ndaxam baaxoo nañ ko am sa fasu sàll di ma ko nëbbu waaye bu ma ko gisee defaral la ko Serigne Touba Serigne Mabé nee na ca jotaay boobee la ko Serigne ne ko ndongoli Mabé nee na ma ko mu ne ko soob na si yàlla sa borom ne fépp fu ñaari nit ak ñett di sukk ci kaw suuf. njéem njariñul àddina ak àllaaxira ci sama loxo bii la jóge moo xam borom xam na ko wala xamu ko daan ko maa bi nee na ma wuyu ko mu ne ma fa ma doon yóbbu góor yàlla yëpp yóbbu naa la fa bis ni tey ndaxam ndongoli dangaa meloon ni kafe gu kafe ba pare ba suukar rek des ci man la yàlla diggalan ma suukar la soob na yàlla diggal naa la la ma defal ñëpp defal naa la ko keroog la Serigne Touba santaat maa Mabé ci ñetti fan yooyu ne ko nag nga delluwaat ngàcc soo demee nga ne nga toog sax ci jàng arxuraan ak di jàngale ci wal jure nekkan ndax xam nga ni Serigne Touba léppam arxuraan la kenn si kitaabu wa hadis wa hadab laa jamxu fiddatun wala jamxu sahab loolu la wax yaa kitaabal karimi anta abibi kitaabu hasisu saara wirda kitaabun xasiisun min xasiisin muxassasin kitaabun karimin min karimin nga xam ne nu ne waxee na ko ne alxuraan kon Serigne Touba léppam alxuraan la kon bu gisee ku mel noonu ay maamam ba ki maamaatan sax ci jàng alxuraan mu ñëw ci moom di foore di kàngu alxuraan jébbalu ci moom moo tax Serigne Touba ñetti fan rek la ko fa téye la manqué wan ca moom mu mottali ko ba mu mot sëkk mu yebal ko mu dellu sax ci jàng alxuraan Serigne Touba nag siñ xamal siñ maa bay ne ko. na nga tok ngàcc te sax fa di jang alquran ak di ko jàngale daal di koy xamal ne ko na nga xamne ne ndongole mun mi di Ahmadou day ma ngi mayekat bi ñoy and fu ñu jëm te na nga xamne ne foofee nga jëm ma yebal la fa nga tok fa ku fa ñëw fekkoo ma fa bu ne fa joon ma fekk fa ca ne ko yow ak sa ñoon nak seen bëgg bëgg adina ak alakhir jëm-jëm na ngeen ko xaar ci alquran lu ngeen bëgg dina leen fekk lool moy sababu daara ji nga fekk téméri dong ak nangam di fa loola am sama kër am fenen ak fenen loolu donolé seigne Ibra sëriñ Ibrahim géey ci leeral bu am solo bi ak fàttali gi ñu fàttaliwaat jëmm ju tedd jooju muy sëriñ Mabé Guèye dellusiwaat nga ci histoire ki xamal ñu ne laata mu wuy ji seexul xadim ci jàng ak jàngale la nekkoon waaye dellusiwaatal nga ñu it ci histoire te jolof la ay waay juróom bàyyi ko woon ñëw ci réew mi jolofit mën nañu wax ne mboolem ñi meññi maxaram ñëpp wala tey ñi nga xam ne tey am nañu cër. ba tax ñu mën leen tudd di tudd keneen muy Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba waaye juróom di soxna jaara jolof la bàyyi ko woon ñëw fii ci Bawol euh, ni nga indee sëñ Mabé it jàngee nañ ci nekkoon boo jëlee sëñ Ahmadou Ndaara ba ci caalalaam ba ci ñi ko meñ ñëpp euh, ay borom xam-xam lañ woon ci jàng ak jàngale lañ leen xamoon sëñ Mabé mi it bokk na ci tawféex ji ko yàlla tawféexal du histoire du bind ne maa yóbbu sëñ Mabé Daara mu jàngi moom moo laxasul boppam dem jàngi wuti xam-xam bi amee xam ba jàng alxuraan ba mokkal ko bind wat jàng xam-xam watu téere yi nag lu def itam ci gis dégg Sëriñ tubaa te booba fekk na fees na dell waaye am na yitte ci feesaayam googu kenn képp lay wër mu Seexul Xadiim mu fekk Sëriñ Tuubaa gànnaar waaye li gën a yéeme ñetti fan yi mu def Sëriñ Tuubaa ñetteelu fan bi nag dara lu ko gën a yéeme amut koo xam ne sa waajur bi muy gisee ak Sëriñ Tuubaa eh, pepp pepp la la la Sëriñ Tuubaa moom yow nga ñëw jëflante ak sëriñ bi mu jox la cere. da te lépp boo ko roon méngale da nga naan sotti ci la ak def ci waaye li ko sëñ Touba xamalit eh, yóbbu naa la fi ma yóbbu góor yàlla yëpp bi mu dellusiwaatee bawal damay wax ne sëñ Touba du defaree du defaree kajoor yóbbu ba bawal sëñ Touba fi mu la defaree rek fa nga jógee ñëw ci moom ma defar la bu la la lay delloowaat bi mu dellusiwaatee bawal nag eh, te damay faral di wax ne tur yu bari dana borom tur yu bari dana méngale ak njàmbaar turam yooyu ma amoon yëpp ñu koy wooye li muy wane rek ak njàmbaaram kon bu ko defee sëñ bi xam naa rek ngir xataay waxtu wi dañ lay bàyyi nga ñëwal nag ci bés bi muy solos màggal gi kan lañ ko tàmbalee def ak it eh, sëñ Moussa Gueye mi koy def di ko woote fii li waral mu di ko taxawee xam naa ci ay kàddu yu gàtt rek ñu mën a tënk bu ko defee li des incha allah ñu wéyeeg yéen ba ci cérémonie officielle bi ko defee incha allah lépp loo xaay tukkee na ci màggal gi rek ñu mën ko ànd ak yéen lépp incha allah fii ci Mourides Info waaw bis bi moom ne ne ne ne niñ ko miine ci ci ci ci mboolem këri diine yi l'islam gépp rek. Euh, noonee la bis bi di tëddee te mooy bis boo xam ne euh, bisu alquran ak sunna la muy bis boo xam ne dees ci cant euh, ak di ci fàttaliku jàmbaar joo xam ne sëriñ Mabéye moom ñu doon waxtaane la di ko fàttaliku yit ci alquran ak ci sunna muy bis boo xam ne ma Moustapha mi ngi amoon digal ci alhaji sëriñ Amsatou Gueye ci atum mille mille neuf cent mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit la commencé wan di taxawal bis bi mu tàmbale wan nag ci ak sew lool waaye yàlla suñ borom mi nga xam ne moo wax ne man kaana lillahi kaana allahu lahu euh, képp ku ko nekkal rek mu nekkal la moo moo moo jàppale sëriñ Serigne Moustapha jàppale jaamam euh, ba bis boobu ak si fii bis bi itam bisu jàng alquran la ak xasaay niñ ko miine ci bis yëpp bu ñu xëyee dañu yendoo jàng alquran istighfar salaatu ala nabi ak mbooleem xeeti jaamu yàlla yi ak berde ya ci aju yëpp moom la ñuy yendoo ak di waxtaane mbaaxu sëriñ bi lépp it ñu di ko def ñaan ñeel sëriñ Mabey Guèye ak sëriñ Mor Hassou mi nga xam ne moo jur way juru Serigne Moustapha wu jigéen waaye di ci fàttaliku nag mbooleem jullit yu góor ak yu jigéen yi jiitu barsàq yëpp euh, ba weer wi teroo ba tey daara yi fasantikoo yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ak feneen te bokk ci buntu kër Serigne Mabé mbooleem daara yooyu ñu ngi jàng alxuraan ak di jàng xasaayit bu tey ji nag ñu daje yendoo jàng alxuraan ba tisbaar ñu dajale kaamil yooyu Serigne bi génn def xatma bi yéene yool bi Serigne Mabé yéene ko sëriñ su yéene ko mboole mag ñi ànd nag sëriñ Tuubaa ak jullit yëpp la tàmbale ca yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak koolem mbooleem ko mas wax ashadu an laa ilaaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ñu yéene leen yool boobu bu ko defee àgg ci biir berndel jam yalla yi nga xamne ño ñoo fiy ag nak ca ba la ca dess ñu mottulee ko jangum alquran ak qasida ak waxtane l'islam to moy waxtane ak talib moy waxtane diine bu ñu nee waxtane l'islam serigne touba ci bir alquran tek ci bir lepp ci bir bu beut sen ñu ñaanalante ba di wen serigne makhtar noni moy taxaway bis bi di ñaanal serigne mustafa nak mi koy taxawoo jàmbaara ngogu ndono li fi mag ñi bayyi wan moy alquran ak sunna bayina ci war wo xamne kep ku mbokal serigne mabey rek naw nga ko ci kep ko xamanteni bi mom la bokkal serigne événement bi rek sant nga ko ci gërëm nga ko ci ndax noonu amul lu dul lool ñu koy ñaanal yàlla gën koo dëgëral gën a dëgëral mbooleem sëti sëriñ bi yëpp ak mbooleem umma islam bi di leen sant bu baax di ñaan yàlla defal nu tawfeex fekkiloo nu ko at yu bëree bëri wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Birahim Gueye ci leeral bu am solo bi ak fàttali gi dellusiwaat ci solos bis bi nga xam ci la ñuy fàttaliku sëriñ Mabé Guèye fii ci mu Mubaarak ci Saam ngoog sëñ Abdou Latif dend ak jumaay Afrique du Sud ji bis bi nag xam ngeen ne sëriñ Modou Mamoun Bousso imam moom la ko sëriñ Moustapha Guèye tuddee ak sëriñ omor Gom dara jaale ko sëriñ Omar Gom moom sëriñ Abdou Salam Gom ak sëriñ Taw faal ñu gën koo xam sëriñ Mabé Fall ñu ñaan suñu borom subhanahu wa taala liñ fi yendoo jàng ni ko sëñ bu waxee ci alxuraan yendoo ko fee durus ci xasaayit Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba nu ñaan yàlla mu la yool bi Serigne Mabé waaye la ko mbooleem umma islamique bi yépp xeetu yonante bi alayhi salaatu wasalaam ñaan it sëñ Moustapha Guèye mi koy taxawu su borom guddal aw fanam te wéral ko te yeggale yéeneem sëñ Birahim wax na lu am solo bis bi yaakaar naa ak dëkk bi ku fi ñëw xam nga ne sëñ Mabé yóbbu na sëñ Moustapha Guèye yóbbu na bis bi foo xam ne yaakaar naa kenn ku nekk xam na ne bis mel noonu Eh, yombut yóbbu na it eh, turu sëriñ Mabeye Guèye fii ci eh, Touba ci taxawaayam bu am solo ak engagement am ci wéyal na li nga xam ne moom la ay maam nekkoon mu yar ak jàngale ak tarbiya mu nekk lu am solo kon mbokk yi ñu ngi sant ñëpp ñu doon seetaan leen gërëm seen mbokk Modou Makhtar Diop nekkoon ci présentation bi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.